دوسا رقل مزاج سيب لنا رقل مزاج نونيو رجو بل بل يلا نجول ray doomi jàmbur xëy na comprendre ray doomi jàmbur dem ñëwee instant fa lay mujjee du mujjee fenn waaw ka nekk gàddu li nga am jox da ngeen daw wala da ngeen dem songante ak ñoom wala nu ngeen non ñenn ñi day daw soobu géej ñenn ñi daw yéeg kaw da ngeen da ngeen parom pour dem dem ban heure la woon exactement bu heure rek ay yenn heure exactement. ay vingt trois heures yooyu vingt trois heures ba une heure deux heures géej la. géej gi ci port kii bi lu mu wax Ndefleng deux la waxoon. ci booru Tànk waaw. booru fan. ci booru Tànk nii. centre bi Ndefleng deux gendarmerie. Ah, gendarmerie wala police. alors homme de tenue rek lan xam homme de tenue ñëpp sañu doon ban. mun na woo gendarmerie la mun na woo police. dourné la liyaare reyne doomi yaa ba dem nañ waaw yow biñ déggee tel xamuñu sax fi lañ jëm biñ déggee tel ñëpp jox ñëpp dem comment fay taxaw di xaar mbaya mbaya la tudd mbaya faal lu mu doon fii sama capitaine la moo jàngal bi ñu toog yow moo jàngal bi mu lay àndal dem ak ndaw la ak ak bilaa ñenn ñi daal li ma leen mën a wax rey nañ doomi jàmm te yoroon ab famille ñëpp yaakaar ka benn famille ñëpp yaakaar ka ñu jël ko waaw mooy loolu demee na ko noonu mën naa gën a rafet waaw boo ko ñu jël doomi jàmm sànq ñu fi bilaa moom naa gën a rafet mais mooy loolu amaana nag comme de comme yàlla moom liy gën rek lay def pour mu demee noonu léegi ngeen ne paas ngeen fan ngeen doon dem

yaw maire yow boo waree da yow jëlal sa doom nga àndaa moom nga dem Sénégal sax amul tànk kanam de tànk ginnaaw la am arrière a boolaa rek moo ko am amul kaw de blessé itam bëri na blessé yi na ñëpp moo lu leen gaañ dañoo tiire tamit wala bon ñoo doole yëg yow xeeru noonu ak ñoo doole soobu géen noonu mais blessé amul kenn ku si nekk hôpital jamono ji saa bi waaw mën nañu si guddi mais tey ji comme ni ko waxee yéen ay mool ngeen doon di liggéey xam nga su fekkente ni da ngeen ñàkk liggéey suñu wax mais ku mën a dem ba fay 500000 dugg si daal kooku ana lan mooy tal lan mooy raison bi léegi wax nii paas jabar njëgu jabar la gars yi paas man samay paas dem na sama xarit rëccu na fa laa waxee léegi. bu ñu waree demee sax instant boobu noonu maa moom daje nañ ci taw ànd ak soxna loolu après bi ma ñëwee toog ma démb ci guddi bi ma dajee moom ma ànd ak jabar fii la fii la ma fii la ma fekk ma toog maa benn magam benn magam fii la ma fekk ma toog vraiment ci jërëjëf ko wooyee mais après ci la jógee dem man xaw ma lu xew ci affaire yi kalaale ba boor yi ñoom lañ expliqué lépp li am après ñu ne ku jéggi ñëw dóor nañ koy bal mais naaw mënu ñu wax wax ne kii la daal après ci la image bi commencé daal xamal ne mbéyaan la da doon uti pour jox njabootam suñu borom nag dogal na ne fii la war a yem dañuy nangu ne fii la yàlla dogal ne fa la war a yem man dama déggante ñoo xamante ni sës nañ ci man bi ma nekk la mbuur ñu oo ma yow xanaa yóbbale xew may nañ ma ko donc sama soxna laa yi déggante mu ne ah jiw de laa dégg dañ tëb jam bal ci tànk bi ma ne ah waxi jigéen daal jarul kii quoi xaaral ma oo kii nga gën a sës ci man parce que kooku xam naa ne tamit si gaa ji la bokk muy sama rakk beneen rakk bi ma ko woowee ma ne ko mais gis man dafa ma ne wax lu ma bi dafa daanu dañ ko dóor ma ne ko fan ma ne ko ah ma wax ni yéeme na mu ne ma bu mu dalee si man maa ko jël yëpp naa ko hôpital ah, noonu après ma ne ko ban hôpital mooy hôpital bi ñoom ma dégg yuuxu yi quoi loolu après man bon ma waat sama jabar ma ne ko la wax na la diw bi ñu baal bi dafa taal tànk mun na ma yow lañ ko wax ma ne ko kon na parce xamante ne fii lañ dëkk si kon bëggoon a dem parce que gaal gi tamit ñu koy tëgg man gisuma lu ñu leen war a wax parce que seen wareef rek lañ def dañ bëggoon xale yi dem daani seen tool yi ñëw indil seen i yaay ak seen i parce que ku ne xam na ne Sénégal dafa metti ku ne xam na ne kii gi nu mu meloon melatu ko mm-hmm. ba tey yàq nañ jékki mm-hmm. nguur gi jaay nañ li fi nekkoon yëpp booy yi nag da ngay seen benn booy boo xamante ne day bëgg indil yaayam deux mille sax ko moom wala day toog ak ji di liggéeyam di deux mille mm-hmm. kon ñoom moo waral seen sabab ñu parce que bari na ñoom ne ñu jël seen matériel di ko jaay mhm. ñu jël nañ seen i gaal jaay ñu jël nañ seen i machine jaay lépp pour bëgg a tekki dimbali seen wàll kon ngir yàlla ñun li ñaan mooy Macky Sall ci boppam ñu dimbali parce que li métti na comme moom la yàlla jox réew ñu dimbali ñu ñun ñun métti na quoi ñuy rey ay nit si noonu rek waaw gaal gi fii la nekk mhm. kaw la la waaw Jokalante